ndaamaatan nee naa pajax ci biir kër gi ndagam bàyyi naa mbedd mi nag gis ngeen fi mu taxaw maa ngi ci biir gi ma am nag ñaari couple yu ma seeti nag yi spécial couple yi ñan la euh, sama caméraman bu ñaaw bi topp topp ma rek ma dugg walleen leen couple yi surprise salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum gis ngeen waa El Vision Médias comme nu ma leen ko waxee woon tamit ah, gis ngeen xale yi nuy def ñu def seen rouge noir bu baax nii damaa bëgg ñu daal may may rek ma daal toog ci digg bi tey ñu wax ma tay lan la ñu sant de bés bi mais yéen mais yéen mais yéen mais yéen mais yéen mais yéen mais yéen mais yéen mais yéen mais yéen ah, mais yéen <laughs> mais yéen tiit mais yéen tiit naa de ah mais maa ngi ñëw dama yaakaar na ngeen di ñëw def seen ay blanc ay yeneen couleur mais ñoom ma ñëw fekk leen ngeen def seen rouge noir yi. ah gis nga de rouge noir rek Saint Valentin bi noo ko gisee yow. yow pour man yow su ma ñëwee damay fekk nga def ay bleu ay zone couleur yi xaar ñaarali. tey ku def rouge noir Macky Sall mere la. waaye ñaar loolu la waxtaan bi ma ñëwee loolu la waxtaan. non daf ma doon wax rek di feddali mbëggeelam naan ma ko def man na mu yooyu man ko maa raw. yow loo ko wax. dama la wax rek dama ko nam ci mbëggee dañuy ko wax ci Saint-Valentin bi xam nga di fàttaliku passé jamono bi et tout loolu kese la. macha allah yi na ko gisandoo ndagam bi ma jógee ci mbedd mi xam nga man Zeyna la puissance nee naa damaa sopp fu ne laay dugg euh, ñu féete woon seen mariage ci euh, jamono yee passé rek nga xam ne yàggul euh, nee naa leen kuy xool mbëggeel rek wala ku dem ba takk jabar rek ci ñoom lay roy tey lan ngeen dundee Saint-Valentin bi. Ah, xanaa comme ñëpp rek les amoureux xam nga. Euh, journée bi c'est dédié spécialement pour les amoureux pas spécialement pour les amoureux mais ñi nga xamantene ne ñoo ngi dund que ça soit amitié amour et tout donc euh, man ak monsieur tey fas yéene nañ dund lu neex vraiment parce que moy suñu premier Saint-Valentin après mariage te avant mariage dund dañ dañ ko daan dund xam nga kon tay dañ ci def comme la puissance rek <laughs> loolu lañ ci def tay inshallah yow en tant que yow nga nekk jigéen ñu ne Saint-Valentin euh, tay sa jëkkër bëggoon naa xam euh, yan surprise nga koy waajal. ah mais nag Zeyna surprise moom surprise la moom su ma ko waxee xanaa du nekk di surprise. instant bi fekk naa la ngeen toog fii ba pare. ngeen seetaan li ngeen seetaan di waxtaan seen waxtaan. xanaa nag surprise nag war naa génn si bisu Saint-Valentin bi ngeen ñamal ma si waa adduna bi yëpp seetaan leen nag xam surprise bi Mariama defal euh, chéréem. boobu mënoo leen ko xam parce que surprise minuit lay commencé. kon petit dina wax surprise bi pati eh, mo ñëw fekk la nga toog ak sa sa jongome bi xol ko numu rafeté ëpp na ngeen ñew daal di bu gon na xam yow mi en tant que euh nan ngay waajalee sa jabar eh, tay bës bi mu nekk sa première saint valentin eh, mu nekk sa jabar ji gon na xam tay bës bi no koy préparer wa bës bi comme toujours rek man dama nank toujours rek saint valentin la parce que tay surprise yooyu ngay wax chaque jour moom moo ciy defal mhm. tey suba rek ci la jël na cadeau jox mako ko ban la mais loolu. <laughs> dégg ngeen mbër yaay génn dina génn avec la puissance rek danañ ma wax kado yi lan la ñu génnee ko teg ko fii. non ci la dëkk ak man ci la dëkk ak man. waaw ci la dëkk ak man yàgg na li may defal ay cadeau kon bës bi nii xam nga c'est une première ma pa war ko passé ak moom sant yàlla rek ah. Euh, petit bëggoon naa xam. suis amna ñoo a ñu luy Saint-Valentin comme ni ko euh, nga Saint-Valentin ñu yeen euh, chaque jour ngeen koy ñoo ñoo Saint-Valentin euh, manam ci bës bi rek lañ ko xam tamit petit lan moy amour lan bon chacun a sa perception de l'amour hein chacun a sa perception de l'amour chacun a sa façon aussi bon de le définir voilà

Euh, ñi ne dafa am jigéen ñoo nga xam ne ah, maanaam Saint-Valentin ba Saint-Valentin la ñuy def maanaam li nga xam ne mooy euh, euh, bëggante la ñuy def li nga xam ne mooy kado la def li nga xam ne mooy solo la ñuy def li nga xam ne mooy préparé dafa seen nag def seen rouge noir yi baax solo maanaam ñu wax seen jëkkër ne tey mooy bisu kii mbëggeel yow lan ngay wax jigéen yooyu tey. naa loolu erreur parce que man yaakaar naa ni nit boo xam nit bi ngay bëgganteen chaque jour da ngeen war a dund mbëggeel waro xaar Saint-Valentin wala Saint-Valentine je sais pas waro ko xaar parce que pour pour deuxième amoureux chaque jour Saint-Valentin la da ngeen di dund mbëggeel même xulo bu amee sax da ngeen di war a dund mbëggeel loolu ci am importance te nit boo bëggee nit waroo xaar ba benn jour ñëw nga door won da nga koy wax chaque jour wan ko ko chaque jour kon waroo xaar ba ay Saint-Valentin xam Saint-Valentin moom on le fait comme ça rek mais je peux dire dañu généraliser rek luñ doon dund nga won nit ki fu mu toll si yow xam nga comme ñëpp mais.

Euh, muy seen njegenaay euh, bëggoon naa tamit nga tekkil ma li si lii euh, maanaam lan tamit waaw lii suñ benn xarit moo ko may suñ benn jigéen sata sata bu duudu xule moo ñu ko may cadeau suñ mariage bon lii suñ photo la suñ jaar-jaar la lii soo xoolee jour anniversaire la ma defal ko surprise mhm. lii tabaski voilà yu jour mariage yaa ma gën a xam gis nga fii nii dama ko gagné sañ <laughs> <laughs> yëpp si jour mariage bi la. Euh, macha allah yéen a ko gisandoo kon li may wan ne ñoom euh, mbëggeel bi chaque jour rek ñu ngi koy dund ndax bu ñu ko dundul woon euh, lii nii du fi amaa ah. boo la ñëwee duñ ko fekk lii dañ fekk ñu toog ñoom ñaar ku nekk di partager di nga wax di wax li nga xam ne maanaam moom la ñuy dund seen xol petit tey lan ngay tàggatoog góor ñi nga xam ne tey ñu ngi fii maanaam ñoom dunduñu Saint-Valentin duñ toppatoo seen jabar tey ci wàllu mbëggeel erreur yaakaar naa loolu sax kenn defatu ko léegi képp comme sa jabar yaa ngi koy toppatoo yaa ngi bëgg tamit xam nga fu mu dem ñu xam ne kat kii diw mi jabaru diw la loolu la parce que sa jabar tamit soo toppatoowul tamit bon di nga génn ci mi di ko defal keneen koo xam du sa jabar kon boo amul sens loolu amul sens jigéen na nga koy teral na nga koy yërëm na koy jàppale parce que bon ni seen wéen yi sëgee rek noonu la seen i xel yi sëgee waaw doo leen topp quoi. doo leen topp noonu la ngeen jàppale. soo jàppalee rek wan leen amour après ñoom au fil au fil temps ñoom après xam nga dinañ dem ba mel yow ni nga bëgg. Mm-hmm. lan ngay tàggatoo ak sa Valentine. ak sama Valentine. xanaa di koy wax ni que bon fii moo fi nekk rek elle est ma richesse vitale. bi ci topp bi <laughs> racine euh, racine de mon fleur fleur de mon racine de ma vie. mooy sama lépp. beneen bu mag bi nag. beneen bu mag bi. mooy sama àjjana. <laughs> macha allah yéen a ko gisandoo euh, Mariama lan ngay tàggatoo ak jigéen ñi euh, lan nga leen di conseillé pour ñu toppatoo seen jëkkër yi ndax jigéen da ngaa war a xajam comme du ma la fekkee nii macha allah lii daal damay neex euh, su jigéen ndax man jigéen bëgg naa nga xajam xajam xajam gu bandi goo xam ne da ngay mel ni xale bi toog lan ngay tàggatoo ak sa mbokku jigéen ñi. bon sama mbokku jigéen bëgg naa leen wax ni nañ xam ne àdduna fii tey ku fi am euh, ku la bëgg danga ko war a topp danga ko war a jàpp Zeyna parce que lu am importance la te bari yu fi am na fi ñu bari ñu fi bëggante mais boo xoolee ba xool chaque fois day am ku ci ndax sa moroom wala boo lu bari da ciy manqué kon man te pour am li ma am man boobu man xam naa lu ma am. lan nga am. <laughs> yow xam nga ko yow fekkee nga lépp Zeyna. lan nga tàggatoo la ngay tàggatoo ak sa jëkkër lan nga koy wax. Ah, xanaa. di ko xamal ne je l'aime comme xool ko <laughs> xool ko di ko xamal ne je comme comme plus qu'avant sax plus qu'avant aujourd'hui lu ñu dund ni benn étape la comme on l'a avant te na xam ni incha allah man dinaa la gën a jàpp dinaa la gën a fonk te aujourd'hui tey xamal ni tey laa la gën a bëgg qu'avant xamal loolu dégg nga xamal xam naa noo xam naa loolu xam na loolu xam chaque jour ma wax ko ko mooy ça yëf voilà je t'aime wala. Mhm. chaque jour moi je t'aime et qu'il est important dans ma vie voilà. mooy sa lépp Mais ça sama macha allah yéen a ko gisandoo gis ngeen Zeyna la puissance euh, bu mu ñëwee ci kër gi lu leen indi si ñaari couple yi euh, nekk li nga xam ne tamit ah nee naa la kuy roy rek ci ñoom lay roy nee naa damay tàggatoo rek ba beneen incha allah lii nag laa leen indiloon si euh, Saint-Valentin bi nuyu sama mbokk internet yi nga xam ne ñoom ñoo may faral di seetaan El Vision Médias yaa xam fu mu la fekk ngay seetaan rek nee naa la jàpp loxo rek nee naa leen baay bàyyi ba beneen yoon ndax man tamit damay dem préparer sama Saint-Valentin dëgg neexul. ku gis góor gu la bëgg jàpp ko ak sa fukki loxo voilà loolu laay tëjee. <laughs> macha allah yéen a ok merci bye bonne fête.